سرين بي مو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سرين بي نانا مي نوي مبوك يفي تيو تي تامبلي كو سي سرين مصطفى مي توك taalibe yi di di nuyu mboolem mbokki taalibe yi fi teew yépp li ma weesu day yàgg na sëriñ bi mu ne li ma weesu day yàgg na waaye ginnaaw ci la ñuy xàmmee suñu ci la ko mën a jaamoo. waaye mu ne ginnaaw àdduna ci lañu mën a xàmmee suñu boroom ci lañu ko mën a jaamoo. daa mel ne waxtu wu ne. daa mel ne waxtu wu nekk. da am bind bu bees. bind bu tooy. bind bu mooy jotaay bii. mu ngi seen biir. nee na bind bu tooy boobu nag mi ngi ko jàppe ne mooy jataay bii mu am ci seen biir. jataay bi ma mel mukk ni mu demee ci sama xel ak ni mu demee ci sama xol. nee na jataay bi mënta melal mukk ni mu demee ci xelam ak ni mu demee ci xolam. daj na sama xel kapp. نانا دجنا خلم كاب فاسنا دلي سما خلم نانا فاسنا دلي تم خلم لمتي لمتي جيس اك لمتي خم اك لمتي يك نانا لمتي جيس اك لمتي خم اك لمتي يك من وقوة سنو لامي نانا من وقوة سنو لامي الحمد لله رب العالمين وينك الحمد لله رب العالمين نوغي سانت بو باخ باخ نوغي سانت بو باخ باخ نوغي سانت سونو بروم مينو بولي سيرين بي نانا نيغي سانت سونو بروم مينو بولي سيرين بي سانت سيرين بي مينو فاغول ليب تيك الله بير دي سانت سيرين بي مينو فاغول ليب تيك الله بير اك بيتي دي سانت كيليفي ينو يسو دي سانت kilifa yi nu jiitu di sant ñi nga xam ne ñoo waral jataay bii di sant ñi nga xam ne ñoo waral jataay bii ak ñi bokk ci jataay bi yëpp ak ñi bokk ci jataay bi yëpp ak ñi koy dégg bëggoon cee bokk ak ñi koy dégg bëggoon cee bokk. te xëy na yàlla dugalu ko wala dañoo am gàllankoor rek. te xëy na yàlla dugalu ko wala dañoo am gàllankoor rek. noo ngi sant bu baax a baax a bi nee na noo ngi sant bu baax a baax a baax. jëf ji rëy na nee na jëf ji rëy na lool fi moom. xam naa ne itam. nee na xam na ne itam. ñi waral jataay bii. ñi waral jataay bii. ban bokk fi teew. ba nu bokk fi teew. am dañoo am xaas ci ci liggéey bi. ne dañoo am xaas ca liggéey bi. xaas ci li leen ko may. xaas ji li leen ko may. tawfeex juree ji ñu am. tawfeex juree ji ñu am. sunu borom boole leen ak Cheikh Moustapha. sunu boroom boole leen ak Cheikh Moustapha. muy jëmm joo xam ne. muy jëmm joo xam ne. moo jëkk a sëriñ bi. moo jëkk a sëriñ bi. te mate ko sëkk. te mate ko sëkk. dis gor. di yalla di nitug yalla taxaw gannaaw sëriñ bi taxaw gënaaw sëriñ bi nase lépp nase lépp teg lépp ci yoon teg lépp ci yoon muy dox muy dox baax si fii baag kon jëf ji ne kon jëf ji yeen ñi bokku ci képar googu yeen ñi bokku ci képar googu jombu leen. jombu leen. li leen may tawfeex ngeen bokk ci Cheikh Moustapha. li leen may tawfeex ngeen bokk ci Cheikh Moustapha. moo leen ko may. moo leen ko may. waaye yombul. waaye yombul. tuutul. tuutul. rëy na lool. réy na lool. njëriñul kese la. njëriñul kese la. fi ngeen jafandu nag. fi ngeen jafandu nag. ba xalaat xalaat bi. ba xalaat xalaat bii. muy ndigal li nga xam ne. muy ndigal li nga xam ne. amoon ngeen ko. amoon ngeen ko. mu jóge ci Serigne mu jóge ci Serigne Cheikh. di borom xalaat ju di boroom xalaat ju rëy. waaw ju jóge ci jikko ju xalaat ju rëy ju jóge ci jikko ju rëy maandu di maandu la mu yéene boppam mu yéene ko ñëpp la mu boppam mu yéene ñëpp loolu moo waral ndigal lii mu fi bàyyi loolu moo waral ndigal lii mu fi bàyyi kon nag kon nag ndok bi mu ko fi bàyyee bi mu ko fi bàyyee ko fi bàyyil ak ñii mu ko fi bàyyil ñu xam li mu jubluwoon ñu xam li mu jublu ba jóg ca ba jóg taxaw ca temm taxaw ca temm muy seen itte muy seen itte ba ci seen ba ci seen jataay bii li ci am rek moo di. nee loolu de li ci am rek moo di. sëriñ bi fàggu na lépp. sëriñ bi fàggu na lépp. lu mat a fàggu rek fàggu lu mat a rek fàggu ko. te jubóo na ci ak boroomam. te jubóo na ci ak boroomam. fi ñu ko gisee ba fi ñu ko noppee gis. fi ñu ko gisee ba fi ci boroomam rek la nekk. bi ñu ko noppee gis. bi ñu ko noppee gis. boroomam moo ko nekkal. boroomam moo ko nekkal. boo ko wooyee boroomam mooy wuyu. boo ko wooyee boroomam mooy wuyu. noonu rek la demee. kon. mais kon. nii rek la. nii rek la. nanu sant bu baax a baax. sant bu baax a baax te jógaat nag bu baax a baax. te jógaat nag bu baax a baax a baax. nii ngeen ko defee rek. nii ngeen ko defee rek. ba ngeen jógee ba léegi. ba ngeen jógee ba léegi. taxawu leen geesuwu leen. leen geesuwu leen. kon nag noonu rek kon nag noonu rek la. di wax diggante Cheikh Moustapha Cheikh Amadou Bachir Cheikh moom romb naa na nee na di wax diggante Cheikh Moustapha ak Cheikh Amadou Bachir. ak sëriñ Seex ak njaboot gi nee loolu moom romb na ko ndax ñu bari xam nañ ko ci wax na ji ba tàyyi li ma moo doon am mbet nee na li mu doon am mbett moo doon am bu doon am mbett kon kon fii ma toll fii mu toll. xalaat yi may xalaat. xalaat yi muy xalaat. ngir bëgg rek. ngir bëgg rek. liggéey bii nu bi bàyyil. liggéey bii nu bi bàyyil. nu won gannaaw lépp. nu won gannaaw lépp. def ci suñ lépp. def ci suñ lépp. ci liggéey. jóg moom. jóg moom. di dox jëm fa ko borom jëmee. di dox jëm fa ko borom jëmee. فوف دي نانا فوف لا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ني نين ديف رك لا ني نين ديف رك لا دونا نين دونا نين تي دوما كوي دورا خام تي يين نانا تدوم مين كوي دورا خام تي يين دوما كوي ياغي خول ياغنا ba mu ko dalee xool yàgg na. li nga xam ne moom la yàlla bëgg. li nga xam ne moom la yàlla bëgg. te mën la ñàkk. te mënta ñàkk. di la si yonent bi bëgg. li la yonent bi bëgg. li sëriñ bi bëgg. li sëriñ bi bëgg. mooy nii ngeen nii ngeen aadawoo baaxoo. mooy nii ngeen aadawoo baaxoo ko. booloo àndandoo. booloo àndandoo. dëggu. dëggu. pëseefu. pëseefu. amuk dëggu. amuk dogu. loolu rek lañ mën a xam ci yéen. loolu rek la mës a xam ci yéen. yàgg na koo xalaat ci yéen itam. te yàgg na ko xalaat ci yéen itam. yàgg na koo xemmeem ci yoon bi yëpp. yàgg na koo xemmeem ci yoon bi yëpp. bu loolu amee rek. bu loolu amee rek. kon de la koy mottali. kon de la koy mottali. mooy xam lii mooy xam. nekk ci ndigal li. mooy xam lii nekk ci ndigal li rek. ni ngeen jóg jóg jóg jóg ci xam-xam. ci xam-xam. ndax loolu lépp. ndax loolu lépp. li borom bëgg ci yoon bi. li borom bëgg ci yoon bi. ñu bëggal ko ko. ñu bëggal ko ko. nekkal ko fi. nekkal ko fi. war cee def sunu kem kattan. war cee def sunu kem kattan. xam ci mën a dimbale. xam-xam rek moo ci mën a dimbale. kon nag ndokk. ginnaaw Serigne Cheikh ndigal li mu fi bàyyi. ndigal li mu fi bàyyi.

ndëggul Serigne Cheikh loolee fa mu ko tegoon. ndëggul Serigne Cheikh loolee fa mu ko tegoon. am naa yéen teg fa samay ndëgg. nee na am na yéen teg fa ay ndëggum. loolu moo tax. loolu moo tax. bi yàlla dogalee lii. bi yàlla dogalee lii. te xaw ma fu mu ma jóge te xamul fu mu ko jógee. ndax mësta toq ci sama xel. ndax mësta toq ci xelam. waaye nag liggéeyal Serigne Touba. waaye liggéeyal Serigne Touba. liggéeyal ko ci xam-xam. liggéeyal ko ci xam-xam. mësta jóg ci sama xel. mësta jóg ci xelam. موتخ موتخ بلي أميرك بلي أميرك يا كان يقول داعي فن ينيو يا كان يقول دار فن ينيو ما خلين سمع جبل ما واخي أك جبلهم لب جم تخم لب جم تخم خم تام جتوا في غيتم تام جتوا في غيتم سرينجي سرينجي لمن نالون لمن نالون من لب يلا دفن لكم من لب يلا دفن لكم خناكن خناكن دم أجي نانا خناكن دم أجي دفر تفهم دفر تفهم دم تسوبيمب دم تسوبيمب لولو كن خينا أك نانا خينا لولو كن مو جلسون أك مو وخل بقمني مو وخل بقمني بيل مصطفى بيل مصطفى لي بن بنل لي بنل قدوسو قدوسو مدرسة مدرسة moo waxal boppam ne suñu na moo waxal boppam ne suñu borom. tabaxal na ko ci daraja yonent bi. tabaxal na ko ci daraja yonent bi. jàngukaay. ab jàngukaay. biha. biha. yazulul ada. yazulul ada. xeeti loraange yëpp ci ci lay ci lay dañee. xeeti loro yëpp ci jàngukaay boobee lay dañee. aljahlu. aljahlu. biha biha yazulu al asa wal jahlu wal kamal ci la réer di jeexe takk fii ci la loraa ngi jeexe tàkk fii ci la réer di jeexe tàkk fii ci la réer di jeexe tàkk fii ci la njàqare ci la njàqare ji tënk doomu aadama ci wàllu gune ji tënk doomu aadama ci wàllu gone ci lay fiy jógee ci lay dàqoo ci lay fiy jógee ci lay dàqoo kon الحمد لله توفيق لي ما لي انا كون الحمد لله رب العالمين توفيق مول أنا أقول لك ام نعم. با نين نك جي با نين نك جي أنا لي دا نين نوجي جيتو مل لي دا نين نوجي جيتو واي واي بلا جامام بلا جامام دا نين جي داب دا نين جي داب فك في نتي بور فك في نتي بور بور اندكو يين بور اندكو يين بور موتاخ moo tax. mu ne jataay bii. mu ne jataay bii. sama yitte jëpp. yitteem jëpp. ci xam-xam laa koy def. ci xam-xam la koy def. jàngu boobu. te jàngu boobu. def sama lépp. ci lay def léppam. jàngu bi nag. te jàngu bi nag. bu taxawee. bu taxawee. lépp sotti. lépp sotti. man loolu maa ngi ci loolu. nee na mi ngi ci loolu. li ma bëgg wax ak yéen. nee li mu bëgg a wax ak yéen. ma yéene ci yéen. yéeneem ci yéen. xaju fi waaye nag. waaye nag. jàpp ci lolu? nu jàpp ci loolu. mangi ngi maa ngi ci lolu? rek. nee na mi ngi ci loolu rek. fas ko yéene ànd ak yéen rek. daay man kattanal. yàlla yàlla na sunu borom kattanal. yàlla na sunu borom kattanal. baagale sunu yéene ñun ñëpp. sunu yéene ñun ñëpp. ci liggéey sëriñ. ci liggéeyal sëriñ bi. sëriñ Mamoun la. sëriñ Mamoun Diop. nee na am na kàddu yu mu wax yu am solo. nee na mi ngi lay sant bu baax. nee na loolu moo ko wax ci làmmiñam. nee na daa wax ne nun mën na koo mën na koo mën sant sax ba di ko liggéeyal. sëriñ bi mën na koo sant sax ba di ko liggéeyal. waaye. waaye. nanu góorgóorlu. nanu góorgóorlu. ba sunu jaamu yàlla yépp yi xam ne. ba su ko ñàkk def dañ nu ko teg. ba sunu jaamu yàlla yëpp yi nga xam ne nu koo ñàkk def dañ nu ko teg. yàlla binduñu. yàlla binduñu. andi nu fi. andi nu fi. nu di jaam. nu di jaam. mu di nu jaamuloo. mu di nu jaamuloo. jaamu googu. jaamu googu. nanu góorgóorlu. sunu kem kattan. sunu kem kattan. lu nu ca mën. lu nu ca mën. nu di ko def. nu di ko def. waaye nag nan ca fas. waaye nan ca fas. liggéeyale ko sëriñ bi. liggéeyale sëriñ bi. liggéeyu sëriñ bi itam. liggéeyu sëriñ bi itam. jeex gi mu tàkk jeex jeex gi mu jeex tàkk ci boromam. jeex gi sëriñ bi jeex tàkk ci boromam. ànd ak yonent bi. ànd ak yonent bi. ngir ndigal. ngir ndigal. ba yonent bi. ba yonent bi. jàpp ci loxoom. jàpp ci loxoom. delloo ko boromam. delloo ko boromam. kon. kon nanu góorgóorlu bu baax. nanu góorgóorlu bu baax. liggéeyal sëriñ bi. liggéeyal sëriñ bi. jaamoo ko yàlla. jaamoo ko yàlla. na na nekk foofu rek. nee na nekk foofu rek. sunu kem kàttan. jërë ngeen jëf. sëriñ bi nee mi ngi jégalu bu baax. nee na li mu yéenee wax ko xajul fi. waaye kàddu yooyu. ñu yër ko bu baax a baax. nañu ko yër bu baax jàngataat ko jëriñoo ko. sëriñ bi nee mi ngi ñaan bu baax a baax a baax. njaboot gii. ak bokki taalib yi. sàmmal leen boppam. sunu borom sàmmal leen boppam. aaral leen boppam. bàyyi leen fi boppam. te bàyyi leen fi boppam. wéral leen. wéral leen. kattanal leen. kattanal leen. gën leen a xiir ci boppam. gën leen a xiir ci boppam. gën leen a xiir ci sëriñ bi. gën leen a xiir ci sëriñ bi. bañ mën a bañ a gën a mën a nekk nekk ci li war a nekk. bañ gën a mën a nekk ci lañ war a nekk. muy jaamu yàlla. muy jaamu yàlla. liggéeyal sëriñ bi. jërë ngeen jëf. tabaarakalla sëriñ bi joxe addiya ji mu ne jataay bii moo gën ay milliards. ay milliards ay milliards yi milliards milliards. ak àdduna ak li ci biiram. nee na jataay bi moo ko gënal. na ñëpp tàllal. li sadinatan bi kun lil janna min daari minan yaasal minna سرين بي مو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سرين بي نانا